Euh, man maa ngi tudd Omar njaay euh, dëkk fii Yoff laa dëkk di nekk kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jéem a jàppalante ak seen mbokk yi ci liggéey bi nga xamante ne dinañ ko def si jàkk bi nekk si Cheikh Anta waaw association bi nga xam ne moom moo géré jàkk ji mu ngi tudd ay AEMUD mooy association des musulmans des étudiants musulmans de Dakar. d'accord julli fay faat. waaw julli fay faat dinañ ko dëgg dinañu dëgg nit ñi di koy wax ñu ñu askanale ko ci yenn ci mag yu baax yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. waaye nag bu ñu seetee coslaay bi cosaan bi nekkul si ñooñu parce que sëriñ Touba bi nga xamante ne moom lañuy askanale julli fay faat dëgg la gis nañ ko ci téeréewam bi nga xamante ne moom lañ tudde ayatu sana mooy ñaan nga xamante ne jullit bi dina ko def si si at bi waaye en aucun amul source bu ñuy tettal nit ki moom moo ko bind wax bi nga xamante ne wax na ko ci téere googu dafa toxal wax jàmbur rek mais auteur bi nga xamante ne moom moo ko bind ku ñu xamul la kon bu fekkee dañuy jël wax googu ñu askanale ko Serigne Touba kon dañ koy tuumal moom Serigne Touba euh, ndenkaane na ay yoon yu bëri pour jullit bi mu sàmm julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit mu daal dañuy dënk ci anam yu bëri pour jullit bi bañ a sàggane julli muy dem sax bay tëkku ki nga xamante ne dafay sàggane julli boobu mu dem sax ba wax ñu al ahdu bay baynana wa baynahum solaa lu ñu utale ak ñi nga xamante ne duñu ay jullit moom mooy julli fa man tarakaha faqad kafar mu ne ku ko bay rek kii weddi na kon bu fekkee yi tëkku lañu tëkku ki nga xamante ne dafay sàggane julli kon ki nga xamante ne topp na ba neexu bakkenam ba sàggane yooyu julli mu ne daf kay daf kay fay loolu moom dafa di li nga xamante ne dafay topp bànneexu bakkenam mais tegu ko ci xam-xam tegu ko si njàngale yenteb sallallahu alayhi wa sallam bal alquran sa dafay wax fa xalafa min baadihim xalfun adaau salata wattabau shahawa fa sawfa yalqawna ghayya gannaaw bu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw si ni ñu baax yi lu ñu njëkk a def dañoo bàyyi julli bu ñu bàyyee julli nag ñu topp seenu bànneexu bakken yàlla mën a ñooñu noonu dina ñu dajal ak safara gi nga xamante ne moom la ñu kon julli fay faat bi nga xamante ne mu ngi lëmbee réew mi fan yi surtout avec réseaux sociaux partout nit ñi di koy propager dafa di li nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalew ko te ñun bu ñuy inspiré si diine bu ñuy toxal dara si diine bu ñuy saxal dara ci diine ci ñaari mbir yi la ñuy basé wu moom mooy alquran ndax benn si 6234 versets yi est ce que am na benn verset bu ko wax wala xadis yi nga xam ne moom lañuy ñuy jëlee seen teb sallallahu alayhi mu nekk ay xadis yu wóor est ce que am na benn xadis bu si addu amul benn xadis yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi jàngalee na ko mu nettali ko wala ñu ne saxaaba yi nettali nañ ko wala ñu ne taabiin jàngale nañ li nga xamante ne mooy julli fay faat kon bu fekkee nit ki daf koy def dafay gëstu d'abord lan mooy position l'islam ci loolu ndax am na wala amul ci benn xadis la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne jullit bu toog ñetti fan julliwul kii du jullit kon bu fekkee yooyu tëkku lu tax nit ki dina dafay sàggane ay julli wala julli yi nga xam te ne fàtte ne ko mu ne daf koy fay ci aljuma bi nga xam te ne moom moo mujj ci vendredi bi aljuma ci koor gi kañ aljuma bi nga xam te ne moom mujj ci koor gi ñu ne ci la ci ngay defee googu julli nga julli ñeenti rakka gi nga xam te ne day ànd ak benn sëlëmal rakka bu njëkk bi nga jàng fatiha ak fukki inna fukki euh, inna anzalnahu fii laylatil qadr fukki yoon ak juróom si premier rakka bi deuxième rakka bi inna fa gannaaw fatiha nga jàng inna a'taynakal kawsar troisième rakka bi pareil quatrième rakka bi pareil loolu dafa di li nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalew ko te nit ki muy sos dara askanale ko yonent bi sallallahu alayhi fekk moom jàngalew ko musiba gënu ko rëy yonent bi sallallahu alayhi dafa ne ki nga xamante ne dafay sos dafa may askane li nga xamante ne waxuma ko te jàngalew ma ko mu ne fal yatabawwa maqaidahu minan naar man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an naar ki nga xam te ne daf may fenal loo mu jël ab wax mu askanele ma ko te man waxuma ko jàngalewu ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kii na préparé dëkkuwaayum ci biiru safara yàlla tabaaraka wa taala mu dellu wax ñu falyahdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim na moytu ñi nga xam te ne dañuy uutee ak njàngalew ngir fitna mu dal leen fitna bi borom xam-xam dañ ne mooy bokkaale wala mbugal mu tar mu daal di leen di dal jullit bi lu ko war mooy en aucun cas de sa vie waruta sàgganee julli julli fii ak nit ki mu ngi ànd ak conscience am fii ak nit ki amul ngante gi nga xamante ne l'islam daf ko ko reconnaître julli teggeekul ci kaw nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu muy dem ba muy waaj a génn àdduna mu jox ñaari ndénkaane yu am solo moo ne yaa qawmi yan sama waa xeet assola assola maa ngi leen di dënk julli maa ngi leen di dënk dënk jul wama malakat ay aymaanukum ak ngeen toppatoo jàpp bu baax seen soxna kon bu fekkee kii dafa dem ba nekk si sukuraat heure boobu nit lu muy tal du bëri muy dënk waa xeet bi pour ñu julli kon ki nga xamante ni dafay jundi day indi julli fay faat mooy dafay ne julliti sàggaanee leen julli bu leen waaw ni ñi loolu amul dinañ ne vendredi bu mujj ci weer koor la mais loolu doo ko gis benn yoon si njàngale yonent bi sallallahu alayhi sallam façon jëf yooyu jullit bi mu moytu ko moom moo koy muccal àdduna moo koy muccal àllaaxira te ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla jëf bu ma gën a bëgg mooy julli ci waxtoom waaw kon bu fekkee dañ ne jëf bii la yàlla gën a bëgg mooy julli ci waxtum kii nga xamante ne dafay sàggane loolu day saggane lu yàlla bëgg kon moom mën na si soro yërmande yàlla tabaraka wa taala te ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne awalu maa yuxaasabu bihi l abdu yawma alqiyamati assolaa lu ñu njëkk atte jaam bi bésum penc mooy julli fa man tarakaha faqad kafar kii nga xamante ne bàyyi na ko rek mu ne kii weddi na kon julli fay faat ni ñi dinañ ko siiwal jël ko tasaare ko ci réseaux sociaux yi ni ñi gëm ko léeg ñu ñu askanale ko lenn suñu mag yu baax yi nga xam te ne ñoo nekk fii waaye dama ne loolu nekkut li nga xam te ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee na ko te nekkut li nga xam te ne xam nañ ko si jàngale mag yu baax yi. bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain bon man Mouhamed Diop dans le même sillage que li frère bi doon wax <clears throat> mu wax dafa motale. mais c'est parce que boo gisee ma ci dolli mooy en toute sincérité ah, dañoo nekk ci jamono man sax waxuma ci réew li ñuy wax ni dépassé na réew mais jamono la jamono daal mooy doxe tànk yoo xam ne léegi kenn xamatu ko parce que li nit ñi di xëy di sànni ci réseau sociaux yi wala sax ci rajo di wax mu yegg fu nekk ci àdduna bi di def ay conséquences yoo xamante ni sax ki koy wax xam naa du du ci bàyyi xel parce jël sa benn whatsapp wala sa benn réseaux sociaux rek nga sànni ci benn mbir di wax ci diine lu mel nii donte nag du léegi la fi am yàgg na fee am jiitu na tey mais tey nag dañ ko actualiser di ko dugal ci réseaux sociaux yi li ma bëggoon a dolli ci li kii wax diine laayante biir la ad diinu a nasiha yàlla moo yonte bi alayhi salaam moo wax ni diine conseil sincère moo ci war a am ci diggante ñi ko seq ñuy waxtaan di laayante biir di gën a jege yàlla ci anam boobu la ñuy defee lii ñëwuñu di ko defee ci beneen am cependant comme diine ji dafa nekk lu ñu sacré on doit pas jouer avec parce que benn instant yenn fey ak yenn jëfi ki ko def sax mun na bañ a am yéene fooye diine mais bu yàggee dana xaw a nekk fooye diine donte mun na bañ a nekk yéeneem parce que boo fi génnee julli boo xamante ni fay faat boo xoolee baat yi sax fay faat faat mooy li nga xam ni weesu na fay mooy nga dabaat ko benn genre rattrapage la quoi foofu laa bëggoon a dolli tuuti je le dis modestement dañuy gëstu diine quand même tooguñu croiser les bras parce que jullit lañu suñu diine daf ñoo ñor dañ koy gëstu incha allah mais toujours on est modeste pour dire que duñu ay savant mais lii moom li ñu ci wax lu leer la te ku ko bëgg a teggi nag foofu laa bëgg a waxee parce que moom wax na lu leer mais dinga gis koo xam ne dafa koy def bëgg carré wara wala contredire lu mel ni li kiy wax. bu boobaa man kooku laay waxal xam nga kooku lu ma koy wax ci diina yàlla ji ki nga xamante ni moo ci indi benn jaamu yàlla kooku mooy indi bopp mooy indi preuve ci li muy jaamoo yàlla mais du laaj nit ñi koy tegg pour lan ngeen koy teggi je ne sais pas c'est ce que je me fais comprendre al aslu fi diine al manu illa bi dalil maanaam diine cosaanam mooy doo def dara lu dul loo xam ni si moo ñëw ne la lii ci diine la bokk def ko mais yow boo jógee indi dara ci diine te gisoo ko dan naan la indil fi nga xam ni fa ko yàlla waxee wala yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu am source honnêtement intellectuel sax moom day wax naan il faut être honnête ci wàllu xam-xam da ngay am source mais voyez-vous euh, mon frère ci wàllu diine yow da ngaa ñëw des génération après le prophète boo indee lu bees est-ce que du yow yaa war a wax li nga def foo ko teg bala nga naan nit ñi koy teggi nañ wax pour la ñu koy teggi nuance boobu damaa bëggoon ñu génne ko ci xel yi quoi y' a pas d' ambages dans cela celui qui invente une chose de toute pièce il doit donner des preuves de ce qu'il dit en matière de religion je dis bien s'il ne l'a pas il n'a qu'à être quand même modeste moo xam ne li wax ça ne pas la route danger yi kii doon wax dama ko intercepté parce que dafa xaw a doy waar mooy bu ñu demee ba am julli boo xam ne nit ki nee nan bu fekkee dafa am julli yu ko raw volontairement wala involontairement mun na koo def muy ci àjjuma bu mujj ci koor gi d'après li ñu joxe ci information boo gisee ma naan d'après li ñu joxe parce que de diine bi ñu xam muy bi jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam gisuñu ci loolu kon ñi ko wax rek seen wax la ñu mën a wax ñoom noonu lañ ko waxee ak inna anzalnaahu yi ñu ciy tareek ila yi mais yow jàppoo ni loolu danger ngi si bu ñu ko yombalee population yi benn masamba mooy toog rek du julli ay waxtu ne bon am na benn jour boo xam ne loolu mun nañ ko régler mais loolu aussi benn instant nit ñi dañuy foye li gën a sàkkari ci seen dund te mooy diine ji diine ji daal léegi daal fowukaay la pour être sincère hein donc euh, bref li ma bëggoon wax moom mooy ñi ko gëm dañ leen di laaj biir ci ne bu ñu doxoo tuuti rek gis ni amul fenn fu mu jóge ci yonte bi wala ci ñi jànge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy taabiin yi seen i taalibe yonente bi ak taalibe ñooñu ba ci ñoom imam Malik ñii nga xamante ne nag réew mii ñu ngi ko fi léeg seex sax ñu tooñ ko nag de parce que léeg-léeg ñu askanaloo ko lu mu waxul ci lu bëree bëri nag loo xam ne bu ñu ko doon lim duñ fi jóge kenn koo xam ne day réclamer wu ci école imam Malik mun na bind dara rek ñu ne imam Malik nee na mais l'élève n'est pas le professeur parfois dañuy jaawale mbir yi te bokkul donc en un moment donné on doit faire attention avec la religion du forum islam du forum. boo xam ne nit ki doo jóg rek di joxe say idée léegi boo xoolee ñuy wax ci xam-xam ñu ci bëri ci diina sax logique la ñuy demee mais pas ay texte logique la ñuy demee léegi te diina am na logique mais day fekk texte yi ñëw ba pare logique soog ciy topp s'il y a conformité entre la logique et les textes on prend la logique mais si la logique est contradictoire avec les textes on n'a pas à prendre ces genres de choses là ceci euh, s'inscrit dans cette même euh, dans ce même sens kon julli fay faat benn fee bu doy waar xaw bàyyi ngeen ko xel wala déet mooy ci wàllu diine sunna munut a remplacer farata logiquement rek nga déglu ma kon ki nga xam ni dafa am ay julli yu ko raw yu bari ay farata mu ñëw di ko fayee ci julli boo xam ne daanaka kenn mënul ne farata la ala kulli xaalin ali de julli fay faat kenn du ne farata la te ku ne sunna la nag hmm, wax bàyyi xel li mbokk wax. di nga ñëw bés ñu yee la ne la yow sunna bi nga waxoon fu ko yonente bi waxee woon bis boobu ngay xam ni wax dañ koy sàmm làmmeñ surtout bu fekkee ni diine la liñ ciy wax dañ ko war a xool non maanaam sunna mënut a remplacer farata te kii am ay boru farata mu ñëw julli-julli boo xam ne boo ko doon xool sax danga koy mun a classer ci naafila est-ce que yéen gisagum ngeen julli farata boo xamante ni ñeenti ràkk am benn sëlma ci li ngeen jàngagum ci julli amul am na ci naafila nag naafila mun nañoo def ñeenti rakka ñu def benn sëlmal kon bu doon xool lii dañ naan lii naafila la gën a jege te nag bu fekkoon ne dañ ko bugg a dugal ci naafila dañ naan sax erreur yi mi ngi gën feeñ mu ngi gën graaw parce que dañoo bëgg a jël farata di ko régler ak sunna te impossible ça ne sera jamais le cas non non attends c'est tellement incohérent cette prière là c'est incohérent c'est incohérent plutôt comme on dit et julli ñi nañ delluwaat ci li mbokk mu wax nañu fonk julli mon frère julli lu mu sàggan sàggan sàggan nay julli li may wax nag am na ci benn aspect bu xaw a am sensi bu sensible mais waxuma ko pour tijji nit ñu bunt benn euh, bés kenn ci saxaaba yi ñëw na ci yonent bi alayhi salaam mu ne ko man de démb ci guddi ah tarxis naa maanaam jum naa parce que lépp lu góor di séq ak jigéen séq naa ko ak koo xam ne du sama soxna loolu metti ko ndax ñoom bu ñu juumoon dañ daa ñëw ci yonente bi pour mu setal leen parce que xam nañ ni ñu setal la fii moo gën ba yowmal xiyaam ñu lay setal mais bi mu waxee loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni ndax julli nga julli suba ak ñun fajar ak ñun mu ne ko waaw mu ne ko yàlla jéggal na la dafa ni ko def naa lépp lu jigéen di góor di def ak jigéen ba mu des yegg ci moom loolu rek moo desoon mais lépp def naa ko ba mu des yegg ci moom acte bi yonente bi ne ko ndax julli nga ak ñun fajar mu ne ko waaw yonte bi na ko demal yàlla jéggal na la lii mooy julli ni muy setale doomu aadama Sénégal nag julli gi moom daanaka fi mu toon nii ay deuxième la comme on dit waaw may jeexal nag parce que mënuñoo jël temps bi yëpp ba tey dañuy laayante biir ñun ñëwuñu pour diingat mais nag am na yoo xam ne bu buñ ko waxee ci diine yàlla ji te nañu bàyyi xel ni diine ñëpp ko bokk kon ku ko laal ña ca bokk am sañ sañ sañ jóg wax loolu damaa bëgg ñu bàyyi ko xel aussi ah. lu ñëpp bokk dañ koy respecté mais bu pas bu fekkoon yow kese yaa ko moom boo ci waxee kenn du ci dudd mais dafa am ay sensibilité yoo laal foofu laa bëgg nit ñi bàyyee xel am na ñu seen diine ñor nag ba buñ ci déggee lu dul noonu ñu wax lañ ca xam te yàlla tax ak teggin bi ñaan yàlla nit ñi dégg-dégg bu positif ba a déggee neneen li ma bëggoon wax foofu moom mooy lan mooy boroom xam-xam yi ci fi ñu gës suñu gëstu fi mu yem ci wàllu julli bu ñu rate dafa am solo ñu leeral ñaari mbir daal laa ci xamagum man ñeneen mun na ni ki xamul dara ñoom bu ñu gënee xam bu ñu leeralee man damay nekk seen bi parce que man xam-xam rek moom itteel bu set nag boo xam ni nag fa mu war a jóge la jóge ba mu xam-xam dañ ni am ci julli nga tardé julli nga am ngant bu koy mën a layal nga am benn empêchement accepté quoi et acceptable bu boobaa boo demee ba empêchement bi dégagé wu nga jóg nga fay julli bi loolu leer na maa ngi nelaw nelaw day bokk ci ngant yi yonent bi saa saa mu ne kii nelaw teggil nañ ko bindal suñ ko dara ba ko mu yeew moo tax sax nga gis ni kii nelaw ci koor bu géntee am lu génn si moom kooram yàquwul te pourtant bu toogoon avec éveillé bu géntee kooram yàqu na mais buy nelaw kooram yàqul parce que mën mënalatul boppam dara teyu ko lu mel nii médecin bi nekk di opérer mais du bàyyi nit ki muy faatu danger danger danger nga mën a def loolu ba pare dem julli ji bal sax ngay boole ay waxtu sax benn instant ñu may la ko lu mel ni julli xoolal yàlla ni mu woyofalee julli bul fàtte nag ni ba ñuy jox yonente bi julli ca asamaan bëri woon na muy dem di ñaan yàlla muy wàññi di wàññi ba mu nekk juróomi julli kon julli ñi war nañ góorgóor ci julli te jikko yi ngay gis muy yàqu nii nag ci société bi diine rek a koy da defar man loolu maa ngi koy lancer appel ko ak ku mën a dégg sama kàddu gi la ca jiitu mooy julli inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar nga julli ñi buñ leen doon yar ci julli ñu def ko dëgg dëgg dëgg ñoom ñooy dem bay soppeeku on n'aura pas besoin d'une armée forte pour suivre les gens partout ak des gendarmes di leen non non julli da lay defar ba nga mel ni nga war a mën a mel boo jullee dëgg dëgg nag laa wax donc fi ma bëggoon jeexalee te fa laa yem incha allah mooy ñu ne ki tardé julli te am gànt bu valable da koy fay yenn boom xam-xam ñu ne nag bu fekkee moom dafa faatu waxtu wi te moo ko tey. am ñenn ñu ne dana fay am ñeneen ñu ne déedéet kooku dafa def bàkkaar kooku day dem tuubi in jaru sax muy dem di julli julli boobu parce que moo ko tey bañ ko def day dem tuubi day day tuubi ndax at tawbatu bu maa la tuub bu nangoo day effacer li passé lépp parce que kooku amul empêchement bu muy ñëw di rectifier kooku moo bañoo na juñu mu bañ a julli beneen bi mooy da ngay gis fii ku tuub bàyyi caaxaan ñëw di julli mun ne dafa dégg ñu ne ko yow la nga passé woon ci say at mosoo dégg boobu aussi li nga paase woon ci say at danga ko war a fay tey boo waree julli tàkkusaan da ngay julli nangami tàkkusaan parce que am na nangami at yoo toog julli woo ko xool li bu fekkoon ni yàlla noonu lay doxale est-ce kon clémence bi ñuy wax ci yàlla lu am la yërmaande yàlla dépassé na foofu nii yëpp na lu ko indi mooy dañoo delluwul ci source xam-xam bu ñu delloo ci xam-xam ci source ba islam day oyof ci ñun mais bu ñu bàyyee nit ñi ñu jël seen seen xam-xam ak seen xalaat di ko dugal ci diine diine dana dem ba kuñ ko bëgg jaamu la ku kuñ ko nga bañ parce que da naan lii attanu ko bàyyi xel loolu ma wax mbokk mi bu ñu yemee ci li ñu yàlla wax ak lu yonent bi sallallahu wax diine dañu oyof ci nit ñi mais wallaay bu ñu ko bàyyee ni muy doxee ku nekk di ci dugal ak a dem ba diine day diis parce que ki ko indi oyof na mais jaam yi oyofuñu ba mun a def lu oyof dañuy dem ba li ñuy teg duñ ko attan xam nga lu war a lool dañoo demee suñu xel bàyyi ki fi yàlla yoon te mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam man Muhammad ah loolu tuub bi non tuub moom tuub la tuub moom xam nga dafa am istixfaar ak tuub istixfaar mooy astaxfirullah loolu bàkkaar yu ndaw yi lay effacé mais bàkkaar yu mag yi tuub moo koy dindi mun nga wax ni allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka loolu tuub la mais am na tuub boo xam ne yonte bi jàngaloon mooy nit julli ñaari rakka jéggalu yàlla loolu tamit tuub la léegi nag boo paree nag nga am yéene nag li des ci kanam nag dinaa def li ma war waaye mbokk yi góor góorlu diina ji woyof na nag yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa wax bi muy santaane koor ba ci fin ba mu ne ko am ngànt wala ngay tukki wala yooyu na nga sa julli mu ne man yàlla damaa bëgg ci yéen facilité mais bëgguma ci yéen jafe waaye nit ñi nag bu ñu leen toppee diina dana dem ba kenn du ko attan man daa loolu laa ci xam waaw yal nañu yàlla sàmmal suñu diine boole xol yi nag ah def ñu benn quoi bàyyi wax yi amul njariñ yi quoi yal yàlla sàmm wallahu aalam waaw. lu ñu yokk rek mooy di gërëm suñu grand frère bi wax bi matale na te ànd nag xam-xam di wax rek importance bi nga xamante ne julli am na ko ma jeexale ko foofu ñu seet ci xare saxaaba ñu nekk ci xare te boo nekkee ci xare ennemi bi mun na la dikkal à n'importe quel endroit pour mu rey la wala mu lor la mais ci xare yàlla tabaaraka taala si suratu nisa mu sant saxaaba yi pour ñu julli kon bu fekkee nit ki dafay nekk ci xare si situation bu jafe boobu ñu ne ko jullil ki nga xamante ne amul benn ngànt nag lu ñu wax ci moom yaakaar naa julli kooku lay gën a war waaw kon julli jullit bi dam ci bay xel mu xam ne kii lu am solo la ci lislaam sàggane ko mooy sàggane aljanoom sàggane ko mooy sàggane yërmande yàlla sàggane ko mooy sàggane pour yàlla tabaaraka taala bëgg nit ki sàggane ko mooy sàggane eh, dëkkuwaay bi nga xam ne moom la ñu tuddee firdaws parce que yonent bi sallallaahu dafa soññu jullit yi te ki nga xamante ne bëgg na ko dina ànd ak moom firdaws te bokk na ci condition yi nga xam te ne mooy tax ba nit ki mën a dugg firdaws boobu muy julli parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa santaanoon julli dénkaane ko mu daal di mettre en garde jullit yi contre le fait de négliger set prière yàlla nañu yàlla sàmm mu may ñu dëgg ak topp yàlla nañu yàlla woon dëgg ba ñu xam ne ki lii mooy dëgg mu yombal ñu mun koo jëfee mu woon ñu neen ba ñu xam ne ki lii mooy neen mu yombal ñu mun ko bay hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad